def nekk ministre ci euh, Bassirou euh, Diomaye Faye ci euh, présidence de la République nee na ku ñu saaga ñun dañu lay tontu ba mu saf journal tamit mu ngi ñëwaat ci li nga xamante ne moom la professeur Maïssa Diakhaté wax ci lu nga xamante ne moom moo di motion de censure léegi ci déclaration politique générale Vox Populi moom jox kaddu ki nga xamante ne moom moo di Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna wax ci déclaration politique générale bind bataaxal ki nga xam ne moo di premier Ousmane Sonko mu ne ko ñëw Euh, biir assemblée nationale naan da ngay janoog ay député ndaxte amul benn loi euh, bu ko wax Bougane Gueye Dany ñu ngi ko doon wax sànq yëkkati nay kàddu jëmale ci loolu Thierno Bocoum euh, moom lu mu wax moom mooy déclaration politique générale constitution moom moo ko tënk dañu war a wax ci li constitution wax wax nañu li nga xamante ne moom la Thierno Alassane Sall wax mu ne tamit dañu war a rek dañu war a respecter li nga xamante ni moom moo di constitution Vox Populi moom moo ko wax ci déclaration politique générale léegi ci déclaration politique générale ñu xaaj ko ci ñetti fan ak bés bil jour ñu ne euh, li nga xamante ni moom moo di déclaration politique générale daanaka euh, ay euh, kaddu la kay tontu Guy Marius Sagna Thierno Alassane Sall ak Thierno Bocoum ku nekk yëkkati ngay kaddu jëmale ko ci mbir mi Ousmane Sonko dafa war a teew ñeneen ñi ni Ousmane Sonko warul teew ci pencum ndawi réew mi Senghane Senghor moom xelam dafa màcc ci wàllu yoon moom nee na déclaration politique général dafay wane ni rek euh, dafay wane rek état Sénégal am na mébét euh, ngir euh, gën a ñoŋal mbir yi ci déclaration politique générale waa L'As quotidien ñoom lu ñu wax moom mooy député daanaka kenn déggulewu kenn déggu leen woon ci dara ci politique générale ñoom ñëpp nag ci lañ ñu bëxet génn génn député yi ñu leen dégg ci mbir mi ku nekk di ci àddu journal bi tamit mu ngi ñëwaat ci lu Bougane Gueye wax ci li nga xamante ne moom moo di déclaration politique générale ba léegi Ousmane Sonko ñuy wax ni remplacé nañ ko ci fi nga xamante ne moom moo di mairie de Ziguinchor Djibril Sonko moom moo ko remplacé mu nekkoon adjoint ma l'observateur ba léegi ci déclaration euh, politique générale ñu ni assemblée boo xamante ne euh, ci beneen euh, ci beneen gis-gis la ñu koy ci beneen fan la koy gisee débat d'orientation budgétaire ñu ni dafa mel ni l'observateur ñu ni dafa mel ni dañu dëpp mbir yi daanaka ndaxte débat d'orientation budgétaire moo war a njëkk euh, balaa ñuy di wax waxu déclaration politique générale lan la ñu mën a xaar ci face à face bi nga xamante ni tey jii lay am ci député yi nga xamante ni ci gouvernement député yi nga xamante ni ñoom nekk désormais ci opposition bi di député Benno Bokk Yaakaar loolu euh, journal bi di euh, l'observateur ñëwaat na ci ñu jàll ci beneen yéenekaay du Source A Source A ñëwaat ci déclaration politique générale ak Doudou Wade Doudou Wade nekkoon ancien député mu ne Yewwi Wi nga xamante ni biir Pastef waa Pastef daanaka ñoom ñoo fa gën a bëri ñoom dañu euh, guddal li nga xamante ne moom moo di seen coalition biir euh, assemblée nationale loolu moom moo tax ñu bëgg euh, def barrage di jàppale ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko wante Ousmane Sonko bu bëggee bu fekkee dafa bëgg a noppaliku moom dafay ñëw biir assemblée nationale def déclaration politique générale comme moroomam yi nu ñu ko doon defee bu yàggul loolu ñu ne ci biir quotidien tir groupé daanaka Ousmane Sonko songu mm, ak euh, ay député ma Thierno Bocoum Thierno Alassane Sall Bougane Gueye Guy Marius Sagna di leen euh, tontul loolu ci journal bi la wante ci kaw ñu ngi gis ne ñi nga xamante ni ñoo ñoo yor entreprise yi fii Sénégal patronat euh, ñoom ñu ngi wax ci li nga xamante moom moo leen moom moo leen tiital nga béy di añ ak mu àndal ci loolu ba léegi euh, journal quotidien ñu war na ci ñu ne euh, CNP maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy patronat bi ñu ngi demandé euh, di ñaan ndimbal ñi nga xamante ni ñoom ñooy état Sénégal ci quotidien ci xol bu njëkk bi ñu ngi ciy wax ne Sénégal daanaka dafa lebalebale ba xamul fu mu jëm ndaxte quatre cent cinquante milliards ci ay euro bu ñu ci jugee ñu ngi tàbbiwaat ci deux cent soixante cinq milliards yoo xamante ni ñu ngi koy xaarandi loolu nag mu ngi feeñul fenn ci compte waa BCEAO ñu jàll ci beneen euh, beneen yéene ak beneen yéene kaay ak Walf Quotidien Walf Quotidien ñëwaat ci euh, ndaje bi nga xamante ni moo amoon démb jam ñaajo ci diggante ñi jiite entreprise yi ak état Sénégal euh, ñu ne euh, état daanaka dafay tey mu ni wax waaw ëllëg mu ni deet noonu la tëddee ci diggante bi journal ba léegi mu ngi ñëwaat ci ki nga xamante mooy Louis François Mendy ak trois médailles d'or yi nga xam ne championnat d'Afrique la ko gagné ñu ne moom yëkkati na li fi nga xam li nga xam ne moom mooy ci wàllu tàggat yaram athlétisme bu Sénégal l'info ñëwaat ci ndaje Euh, mi nga xamante ni moom moo amoon démb ci Diamniadio euh, ñu ne euh, patron yi ñi nga xam ñoo jiite entreprise yi fii Sénégal lan la ñuy xaar mu ngi ci biir yéenekaay yi Sud Quotidien ñëwaat ci lu nga xamante ni moom moo di collectivités territoriales yi gox goxaat yi mairie yeeg yeneen yu ni mel ñu ne ñoom fan yëpp ñu ngi def ay doxu ñaxtu jëmale ko nag ci kenn ku dul Bassirou Diomaye fay daanaka ñoom lu ñuy laaj moom mooy loi 2011 boobu ba léegi kenn appliqué wu ko euh, war a euh, jëm ci ay ndàmpaay yu ni mel euh, ñoom ñu ngi sëqatal ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Faye ngir mu addu ci loolu le soleil ñëwaat ci ndaje bi amoon Diamniadio ñu ne euh, état Sénégal wane na li nga xamante ni moom lay euh, wan na li nga xamante moom lay def ñii di euh, patron yi jiite entreprise yi ndaxte am na ay kàddu yu yoo xamante ni yu bëri yu fa jib yuy jox yaakaar ñii di entreprise yi loolu le soleil moom moo ko wax wante le soleil tamit mu ngi ñëwaat ci coow li nga xamante ni moo wër Ousmane Sonko ak déclaration politique générale ci biir le soleil la le témoin mi ngi ñëwaat ci tey jii benn procès bu war am ci ñetti soldats yoo xamante ni ci armée euh, Sénégal la ñu nekk Euh, ñu ñoom ñu war leen a jugé ñu ne daal ñoom dañuy lëkkaloo dafa mel ni dañuy lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa euh, mouvement euh, des forces démocratiques de la Casamance tey jii lañ leen war a jugé ci àjjuma ji ci tribunal militaire loolu le témoin moom moo ko wax ñu jeexalee ak Copa America football ak quotidien sportif stade ñu ne Brésil daanaka ñoom c'est mal parti ci ñoom ndaxte ci Copa America bi daanaka wane loo xamante ni dal na xel ci journal bi ba léegi ñu ngi ci wane kii di Louis François Mendy euh, nga xamante ni euh, moom euh, dafa bon ñuy wax ne dafay laaj ay prime te prime yi ñu ko jox dafa néew loolu te journal bi tamit mu ngi ñëwaat ci France ak Euro 2024 ci quart de finale yi Didier Deschamps ci façon bi nga xamante ni moom lay jouer français yi di si interroger wu ndax équipe bi baax na waaw am déet Aïcha Diaby li moo gënoon fës ci yéenekaay yi ci ajuma ji jërëjëf Pape Malick ñu jaajëfal bu baax a baax mbokk yi di leen ñaanal eh, ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam dañuy des ba tey ci xibaar yi gën ko yaatal ak li nga xamante ni moo di actualité eh, politique léegi léegi bu bàkk bi noppee ñu dikkat ci plateau bi àndaat ak Pape Malick Thiam.